beaucoup Bara. merci euh, Aruna Aruna boo ki nga xamante mooy le premier vice président euh, de la fédération sénégalaise d' athlétisme ñu euh, maanaam jeux de la jeunesse moo am fii 2026 fii ci Sénégal boo ko déggee est ce que yow doo am doo xaw am maanaam am xaw du tuuti dute tuuti nga xaw sceptique nga xaw sceptique. wala ngay sceptique nga optimiste. waaw première kii bi may mooy. par exemple j'ai toujours di que si les Jeux avaient eu lieu en 2022 on peut-être qu'on on le on n'aurait jamais été prêt entre 2018 et 2022 on n'aurait pas été pare bu bu mu nee pare peut-être dans l'organisation am na benn aspect mais toujours sur le plan de la participation mais on a la chance ñu décaler ko ba 2026 mais au fond je suis désolé mais les fédérations euh, qui président fédération la que les vice président fédération. Ah, mais kii yaakaar naa il a été président fédération moment boobu moment bi ñuy jël def choix. effectivement effectivement mais malheureusement bu ñuy bu ñu la dénkee compétition internationale. Mm-hmm. sa war a préparer. le défi de l'organisation c'est un pan. Mm-hmm. l'État met énormément de moyens pour organiser mais est-ce que l'État met les mêmes moyens pour participer. Mmh. Jusqu'à aujourd'hui, les moyens de la participation ne sont pas disponibles pour les sportifs sénégalais. Quoi qu'on dise, et tant que moyen ne sompa la là, complainte bi mu posé ci table bi moom mooy taxaw donc bu ñu bëggee nit ñi optimiste wala pessimiste ci situation boobu dañ doon xam fu ñu teg suñu tànk. Mm-hmm. doo xam fooy féete parce que sur le plan de l'organisation wax na ko le comité est la travaille les gens les voient faire leurs activités leur préparation active lépp lu war a wër organisation ñu koy def mm-hmm. mais il gère aussi un volet participation. Mm-hmm. chaque tey lu ñu doon xaar depuis deux ou trois ans ci ginnaaw depuis d'ailleurs bi ñu confier Sénégal organisation que fédération génne plan programme am cible ay jeunes yu wara a participer pour deux mille vingt six si par ses directions techniques ne comité olympique ministère des sports ak état du Sénégal fii lañ bëgg a dem nii lañ fiy demee moyens yi lañ soxla mais tey tu as l'impression que y a fédération ki a mis sur la table sa type de document ne fu ñu jëm. Mhm. ba léegi xamuñu fu ñu jëm ci comme plan de la compétition laay waxee waxewuma ci côté organisation mais plan de. compétition participation au mhm. Sénégal. jeunes yi war a def Dakar nañu woon benn fédération rek man en tout cas j'ai pas vu je mhm. présenter ay jeunes. mais ils sont en de se préparer pour les JO ji. peut-être qu'ils sont en de le faire dans leur coin et qu'ils ne communiquent pas sur ça ça m'étonnerait. parce que on voit tous les jours les gens faire mais li ñu gis mooy munoo reprocher état bi aussi. Mhm. defaluma fekk yow de moo ko maa ngi nii lii laa yore. boo tegee document sa plan programme ne ko sama préparation lii la. Mhm. tant de moyens la laaj athlètes yii laa bëgg ñu yóbbu. Mhm. bu boobaa dina ci taxaw. parce que ce qui se passe tudd na Fran lui François Sank mais ce qui se passe dans ce pays là c' est quoi il a été moi j' étais à Londres bi muy ci tapis bi muy <laughs> sur les tapis. muy 2012 2012. mais les gens qu'il rencontrait la bas moom il a peut-être eu deux ou trois ans di góorlu di ñefeel boppam. am six mois avant on lui donne quelques petits moyens à la limite des miettes ne ko demal wuti médaille il va chercher la médaille contre qui contre des gens qui se préparent depuis huit ans. ah c'est vrai mhm. bu nit ki amee dara bu ñu continuer si situation bi nekk tey athlète sénégalais wala sportif sénégalais bu décroché médaille ci JOJ 2026 yi c'est parce que. comme fii mu jaaroon nga jaar reyantal sa bopp conviction ak motivation bi nga am ne dama bëgg am dara mhm. ak le peu de moyens que tu parce que les jeunes qui devaient être euh, sélectionnables ou devaient participer à cette compétition 2026 tey mhm. waroon nañ nekk régulièrement mhm. ci ay camp de préparation ay stage de préparation ay clinique de détection dans toutes les disciplines euh, je donne juste c'est une parenthèse on parle souvent des petites catégories du football qui fait des résultats. Mhm. Pourquoi ils l'a dit Parce qu'ils ont deux centres mhm. ils peuvent regrouper leurs athlètes pendant un mois mhm. sans avoir besoin de l'État. parce qu'ils ont les un peu de moyens yu leen may mën a bu ñu trois ou quatre millions pour regrouper des jeunes pendant trois semaines. à Guéréo au centre Jules François Bocard ils peuvent le faire avec des joueurs qui sont avec même dans le football féminin on arrive à faire ça depuis 3 4 5 ans si on fait reconduit le même schéma ci taekwondo def ko ci athlétisme def ko ci basket ci tennis de ci judo wala dans toutes les disciplines on doit participer forcément Bien au bout d'un moment les résultats vont arriver mais yow ci ci ce qui se passe est-ce que mën nañu mës nga dem defi reportage ou bien dem suivre des jeunes yi ñu ne la ñii. ils sont en train de préparer ko benn camp. Mhm. donc tant qu'on ne fait pas mhm. on va rester là à parler. Mhm. et en sa euh, ça va arriver six mois ou trois mois avant on va sortir des millions dépenser ko. les résultats ne suivront pas parce que c'est un mauvais investissement qui n'est pas planifié. a j'aime bien l'expression qu'il a utilisée. Ils ont planifié leur communication. Gis nga communication JOs yi ñu ñu si bëri Sénégal dañuy anticiper mais tant que Jeux Olympiques Paris jàllul. Mm-hmm. ils se lanceront pas en fait. c'est ah, ça un peu la réalité parce que le comité olympique international travaille. sur les jeux de Paris. sur des paliers. Mm-hmm.